président Bassirou Diomaye Faye euh, tenir démb discours la boo xamante ne ni ci sama jàngat euh, bu méngoo ak woote bi nga xam ne moom la ñu woote la et que heureusement que mu rappeler que ne nekkul procès boo xamante ne dañ koy tenir à la ci ñi nga xam ne nii nekkul procès bu ñuy tenir et pourquoi le mot procès bi mu ci dugal moom yàggul dara il a détenu politique il a détenu il a été de la justice fa la rek dugg palais donc c'est bien xëy na peut être moom jéem a fayonte mais am na loo xamante ne nii jot naa am ci justice sénégalaise ci at bii ñu weesu ci at bi ñu nekk sax ak ci yenn événement yi nga xam ne jot naa am ñu ŋàññ ci lu bëree bëri bëri bëri li nga xam ne nii mooy justice sénégalaise donc mu laaj ñu xoolaat mu laaj ñu defaraat mu waxtaanaat justice bi pour améliorer parce que at ah, euh, loo gis ay nit a koy loo gis ci ci kaw suuf ay nit a koy xalaat teg ko te xalaatu nit nag matul xalaatu nit dafay imperfect dafay dafay am toujours ay fay et yooyu noonu percuté wala sax moom la ñu gis ci suñu justice ba ñu mën a euh, am benn tuuma goo xamante ne teg nañ ko ci ci ci ci kaw et su boobaa il faut à chaque fois remettre les choses à niveau def ay mises à jour mais aussi ñu xool en profondeur li nga xam ne nii loolu moo ci problème bi nga jéem kaa seppi teg ko le et puis indi loo xamante ne nii day parce que justice bi nga xam ne nii moom moo war a nekk justice u parce que comme ni ko Birame waxee la justice est faite pour pour pour le peuple ah elle est rendue pour euh, au peuple et au nom du peuple donc bi nga xam ne nii moom mooy moom moo moom justice te peuple bi nag nekkul rek nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci fonction yi ay président ministre yu demee noon mais ba ci Sénégal nga xam ne nii moom euh, euh, gardien la même si on ba ci sénégalais bi nga xam ne euh, maçon am problème am ay situation yoo xamante ni yaakaarul leneen wala feneen fudul ci justice pour que ñu mun ko jox jàppale ko ci li nga xam ne ni mooy li nga xam mooy mooy mooy mooy li am donc pour man bu président préciser ci mbir mi nekkul procès c'est pour mettre au euh, pour euh, mettre au clair euh, bi pour que ñu bañ a yaakaar ne am na loo xamante ne nii ñu ngi ko ci xaarandi parce que le président euh, Macky wala ancien président Macky Sall bi mu nekkee bi mu jëlee nguur amoon na benn demande sociale bu forte boo mi ngi fi woon Euh, li nga xam ni mooy lutte contre l'enrichissement illicite ak ak des biens mal noonu lañ ko tuddee woon mu amoon ci ay rëkk-rëkk yu méttee métti métti métti ñu gis ci ay situation xamante ne ni tey jii ba léegi mënuñu laa wax ne am na euh, euh, lu leer luñ ci mën a jële gaa am na ci ñoo xamante ne jotoon nañ leen cee jàpp ñii ñu ñenn ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu exiler leen ci et cetera donc situation yi am na et man pour man Sénégal tollul wala tollatul fu ñuy euh, daq dàqante ak nit ñi pour di leen jàpp ak yu demee noonu mais li li am mooy jéem a xool naka la ñuy def jubbanti li nga xam ne nii moom moo moom moom afin que ñu am loo xamante ne nii day permettre à ce que ñu mën a jëm ci kanam assises nag comme ni ñu ko waxee euh, dialogue bi ubbi na euh, commission yi technique ñi nga xam ne ñoom la seen xam wàcc ci mbir mi am na loo liggéey boo xamante ne defoon nañ ko en 2018 te yaakaar naa ne liggéey boobu duñ ko bàyyi mu mu mu mu mu mu sedd dinañ ko jël càmbar ko xool li nga xam ne moo ci baax et puis entre 2018 ak 2024 il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à certaines situations donc aussi c'est l'occasion de aussi auditer li nga xam ne nii moom la ñu liggéeyoon en 2018 mais xool lan moo ci les forces ñu mën ko jël lan mooy faiblesse actuelle ñu mën a xool naka lañ ciy remédier pour que ñu mën a am justice boo xamante ne nii dafay nekk justice boo xamante ne nii ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp te yaakaar nañ ne ak ngànk euh, waxtaan bi ñoom ñoo ngànk li nga xam ne nii mooy euh, travaux yi yi ñu leen boole muy commission dinañu jéem a xool wala sax dinañu ca na mu gënee naka la ñuy waxtaanee ba mën a ut wala ba mën a am ay solution yoo xamante ne mooy permettre ñu mën a euh, am benn justice boo xamante ne ku nekk la ci mën a gis boppam am na nag ay attentes yu bëri yu ci nekk Birahim mi ngi koy wax mhm. conseil supérieur de la magistrature il faut ñi ci ëpp wax nañu président génn ci détention yi mm. longue détention longue détention yi naka la ñuy def pour jéem a ay ay peine alternative ak yu demee noonu même ci administration de la justice comment faire pour jàppale ñi nga xam ne ñooy liggéey Maître Abdoulaye wax na ko la fois dernière pour euh, ñu sax plus de mille avocats mais loolu euh, du du lu ñu war a xoolaat la boo demee ci tribunaux yi di ut ay papier wala di ut ay yoo xamante ne moo lay permettre pour nga liggéey mais am na ci ñoo xamante ne nii bu ñu leen nee tribunal war a lijjanti say say papier duñ nelaw am ñoo xamante ne nii li nga xam ne nii mën nañ ko dañuy nekk ba Kédougou ñu war leen lijjantiloo ay papier ba fii nii tribunal bu Pikine wala bu dakaar te pourtant mu war a mun a am euh, système boo xamante ne moo lay permettre foo mën a nekk ci Sénégal yow papier boo mën a soxla boo ci wàllum yoon la nga war kaa mën a jot parce que ci air boobu la ñu toll ci te foofu la ñu foofu foofu foofu la ñu lañ la ñu nekk donc chantier yi bëri na te mën nañ cee wax fii ba gannaaw suba te jeex jéem euh, euh, chantier yi bëri na attente aussi tam bëri nañ te liñ ciy xaarani nag ñu même liñ ci liñ ciy génnee ci ay xalaat baax mais mu am lu ci ëpp loo xamante ne ni dina permettre yi ñoom ñu mën a soulager wu ci seeni euh, ak aussi tamit euh, boole waat leen ci ak seen justice parce que euh, if ko wax rek te nañ ko wax mooy li am euh, yi ñu weesu ah Sénégal tiit na ci justice te lool ça a été démontré à plusieurs reprises ci li nga xam ne mooy situation yi jot am